rabbil aalamiin wa sallallahu ala subdatil akwaan wa kaabatil arwaaxi wal abdaan sayidina muhammadin majmaci shu'uun wa ala alihi wa saxaabatihi tayibiin at-taahiriin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin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 démb yi nga xam ne ñoo jur daaraay tay yi ngi parcelle daaraay suñu bàyyi alxaaji Keeba Touré tànn fa benn ndongo bu ñu tuddee Yuusufa Géy mu war ñoo jàngal aayaat yi ñu war a firi bisimilah sëñ Yuusuf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو يعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ما شاء الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم تبارك الله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 kepp taw te mooy gàncax ga wa huwa moom yàlla alwali mooy aji méngoo mbiri jaamam yépp alxamidu mooy kiñ sant ca ñoom wa min ayaatihi aji tukkeekoo la ca kaawteefam yi xalqu samaawaati bind juróom-ñaari asamaan wal ardi wa ma basa ak la nga xam ne yulli na ko fiihi maa ñoom ñaar min daabatin ci daaba wa huwa moom qadirun aji hattan la ida yashaaw bu ko neexee ala jamihim ci dagale leen ñoom ñëpp ci mentam mennam ci kenn du tardé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 mi ngi wax tamit ci bàkkaar yi ñi nga xam ne dañuy faggu bàkkaar yu mag léeg-léeg tamit ñu tooñ leen saagala walla wala ñi la yàq saalal alal la ci sa njaboot yàlla nee na nga wan mer ma muñ loola de gërëm naa ko waaye su fekkee da laa tooñ tamit nag nga ne maa muñ waaye waaye fayooxal niñ la tooñee waaye bul yokk dara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 ku mel noonu la yàlla soxla moo tax mu ne wa jasaau sayi atin fayoog lu bon sayi atun lu bon lay doon misluha kemam kem niñ la tooñee nga fayoog ko mënu jéggale waaye fa man afaa képp koo xam ne jéggala ne wa aslaha mu xéwénal diggante moo kam yàquxanteeg fa ajëroo payoor ba alalaahi war na yàlla innahu naka moom yàlla laa yuhibbu du yool zaalimina tooñkat ya wala man intasara ñeel na képp koo xam ne dafa fayu ba'da zulmihi gannaaw tooñ ak aji tooñam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 mi ngi wax ñi yàlla sànk bu yowmal bu ñu demee ba jàkkaarloo mbugalam yàlla man day saanam bu lool sëgg lool xam gàcce lool jullit ñi nag ñoom ndeysaanam ne daal ñi perte tey mooy ñi ñooñ mooy ñi pertal seen bopp pertal seen njaboot ñoom ñoom jullit ñi dem nañ aljana yàlla nañ ca bokk aaye ju loolu lay wax si nii mu ne wa man yu dilli képp koo xam ne sànq na ko laahu yàlla fa maa lahoo déet di ko ñeexal min waliin ci kenn ku koy ménge min baax di gannaaw yàlla wa tara da nga gis xaalimina tooñkat ya lama raaw bañ jàkkaarloo asaaba mbugalam yàlla mi yaquluuna ña ngay wax ne hal min sabili ndax xam na wenn yoon a maradin jëm ci delluwaat ci àdduna wa taraahum da nga gis leen na def na gaaral alayha ca safara na ñuy way toroxlu min na zulli ngi rek toroxtaane yanzuruna ña ngay xool min tarfin ci pet lompañ wa qaala wax la si na ñi nga xam ne amanoo gëm nañ na inal xaasiri naka way perte ña la si na mooy ñi nga xam ne xasaroo pertal nañ anfusum seen bopp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 lii alimente jëmm ba jëmm mën a dund mooy roox waaye bu roox teqali ko jëmm rek ñu suuli boromam yow tamit kon ndeke alxuraan jàppee ko ne rooxu la mel ci yow boo euh, boo boo ñàkkee alxuraan rek sa jëmm ji sa xool bii alxuraan nekku ci rek dee nga moo tax jëmm joo vérifié fekkoo ci moom alxuraan même buy dund dee na jëmm joo xool fekk ci moom alquran même bu dee deexee ma ngay dund yàlla rooxu la ko tuddee rooxu kum nekkul ci yow nga dee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 ñu ngi fiy jot soxna Aminatu Cissé euh, tabaarakallaahu ak Mouhamad Habib ture moom nag moo jiite daara ji euh, mooy ñu sponsoré émission bi kon tamit ñu ngi koy sant moom tamit ci teewam ak Serigne Omar Touré Hadji Malick Ndiaye Serigne Abi Niass ñu ngi fiy gis daal tabaarakallaahu sëñ Cheikh Thiam Moussa Thiam Abdoul Aziz Dia ñoom ñëpp ñu ngi leen di gis ci plateau bi ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ji moo leen doon may seen émission tafsirul quran jotaayu tafsir ak oustaz Hadi bés bu jot ci waxtu wi إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين